الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله يا جفسن توا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي نيو بوكي في تيو ييب لامي نيو سيرن عبد الاحد صايب مي دي سونو كليفه تيوال في كليفه ام دي سونو كليفه سيرن شيخ احمد مبكي مي جيوري سيرن صايب nuyoom boobu muy nuyoo ci turu Serigne Cheikh day ëmbaale nuyoo ki fi nekkal sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko Serigne bi nee na mi ngi nuyu bokk yépp di siyaare ñépp ci weer wu tedd wi leen ci ndokkeel di jotal ak cant ci doomam yii ak jarbaatam yii nga xam ne sëriñ Abo Mouhamadul Habib ak sëriñ Xamsatu Jaxate ak sëriñ Xalil Moustapha Habsa ñoo ne ci bopp doomam yooyu yi jiite liggéey bii mu joxoon leen ci ndigal ngir ñu sos ko di ci liggéeyal sëriñ Touba mu mel ne ku nekk yaa ngi dàkk sëriñ bi ak bëggam di ko ci liggéeyal waaye wér na ne ku ko dàkk ci alquran ak ci xam-xam da nga ci am la nga bëgg rawatina ci kër gi nga xam ne këru xam-xam la damay faral di wax ne sëriñ bi bi mu sancee Touba mbéb gii mu nekk tey tudde ko Touba. ak kër googa jóg ñëw ba daarul xuddoos mu def ak beneen kër tudde ko daarul xuddoos randuwaat ba fii mu tudde ko daarul raxmaan kon bi muy woo sëñ Fallu ak sëñ Moodu di leen dalal mënoon na koo def kër gi ca mën mënoon na koo defee itam kër gi ci daarul xuddoos waaye da leen a jël ànd ak ñoom ba fii ci kër gii ci dimb gii mu dalale leen fi loolu lu muy màndargaal mooy kër gii mooy këru xam-xam loolu la ko féetale loolu la lool lay loolu lay misaal loolu it feeñ na ci ba foofee mu leen dalale woon fa la jàngukaay ba nekk li ëpp ci ñi sëriñ abi bu doon jàngal xam-xam foofu lañ jàngi jógewaat fa di jàngale yi ay daara yu bari sosoo ci kon nag buñ fi sosee daaray xam-xam ju nii dëppale ko weeru sëriñ tubaa di safarul xayr damaa jàpp ne jamono ju nekk ak la ñuy liggéeyale sëñ bi bu doon ba ñuy gor dëkk bi loo mën a defal sëñ bi te góoroo ba ba dëkk bi set wecc ba mel ni sëñ bi bëgg liggéey ba des na ndax booba loolu la sëñ bi soxla waaye jamono jii nu toll nag jàpp naa ne ubbi boppi nit ñi jàngal leen ci xam-xam yee leen bañ xam luy sëñ bi ak luy njàngaleem sëñ bi ak lu nu fi sëñ bi bàyyeel bañ mën koo téye suñ fukki loxo ba duñ xool leneen duñ seet leneen loolu jàpp naa liggéeyal sëñ bi bu ko kaw kon nag yéene ji gone yi amoon balaa ndigal sëriñ bi seex nee na rëcciwu ko dama ci doon séentu lépp gis na lu ko raw kon nag mu ngi leen di soññi di leen xamal ne ndigal la mu leen joxoon mi ngi koy wéyal di leen ci soññi amee na ko nu kawee njortam mu ngi leen di ñaanal seen maam Serigne Touba teg leen loxo dëgëral leen ba li ngeen ci yéenee tasaare ci ay xam-xam ak ci liggéeyam ngeen def ko ni ngeen ko bëggee te bañ am menum ndog bañ am benn jafe-jafe seytaane bari na doole lool waaye tëne sëñ bi ak ñoñam ñi ko nangul inna ibadi laysa laka alayhim sultaan kon nag loolu moom amatuma lu ma ci yokk sant mënta weesu sant sëñ Cheikh sant na leen ay rakkam sant na leen njabootu kër gépp sant na leen cant googu it da ko wax ci turam waaye turum njabootu sëñ sang bu gépp la ko waxee ak njabootu sëñ Touba gépp ndax fi barabu sëñ Touba la yéen yore liggéey bi ajuwu leen ci kër gi rek fii dafa këriwut yoon wi la li fi ne yi fi yoon wi la yéen ñu koy defit waaye yoon wi ngeen kon nag ci tur yo ci tur sëñ Touba la leen sante sant ngi sant bu baax te di leen ñaanal li ci des mëni suta waxta tuddoo sëriñ Abdou Dia mi nga xam ne moom lañ ko tuddee ak santin ñi ci doon def ay waxtaan ñëpp it dugg na ci biir cantuk sëñ Abo gi sëriñ Abdou Dia sëriñ Mbàkke soxna waajuram sëriñ Abdul Qadir mooy waajuram sëriñ Abdul Qadir moo doonoon magi maam Mor Anta Sali moom la pël ya rayoon bàyyam maam Balla di ko bindiloo ab kaamil mu dem ba sori mu am ci yaakaar lool pël yi fekk ko fa mu ne di bind ñu cor ko rey ko maamam moom yi di sa sëñ Abdul Xaadir moom lañ ko tudde moo jur bàyyam sëñ Abdou Dia sëriñ bee ko jur ci wet gu ne wetu ndeyam ak ci wetu bàyyam génnut sëñ bi fenn bu doon ak bokk rekk rekk day jëriñ ci sëñ bi kon manis na ne kenn du ko gën a jëriñu ci sëñ bi waaye dafa fa bokk teg ko fee jënd ko ak taalibe jaayante ni ñépp di def jóge fii walla bu yóbbalam jaayante fekk sëñ bi gànnaar te booba dem gànnaar képp doy nag njàmbaar ndax lu ne ngi ci yoon bi addu kalpe yaa ngi fi ñi ñi doge ñi dogee di jël sa alal di la lor ñu ngi fi lu ne ngi ci yoon bi waaye sëriñ bi jaral ko lu ne mu waaj ngir fekki sëriñ bi jox ko boppam jox ko léppam ba mu dikkee ci sëriñ bi sëriñ bi nangul ko ak taalibeem gannaaw ba mu ko jébbalee kaamil jox ko li li sëriñ bi gën a bëgg muy alxuraan sëriñ bi bëgg ci lool daal di koy téye di ko liggéeyloo ci alxuraan boole ko ay doomam xam ne doomam la yamale leen keppit ci lépp ndax loola weesuwut lu mu leen di defloo ñoo cay bokk ay cër bu dee ay yéere ñoo koy bokk bu dee ak lekk ñoom lay boole loolu la mu leen di jox fas ca lam cay fas te suñ bi du def dara cig neen tibb cere sax bu doon tibb mën na caa def loo xam ne ab yónnente defu ko ci saxaaba ndax sëñ bi yàlla yëfi yëfi yàlla la yoon te yëfi yàlla amut fu mu jëm kon nag sëriñ bi dafa jëfandu ko ci moom coobare moo tax boo gisee fi waa kër sëriñ bi seddu mu seddu fi këram gii fii mu ne nga xam ne sëñ bi cërub njabootam la ko jox te te day doomam it waaye liy jariñe nag innam nii min ahli laysa laka laysa min ahlika innam nii min ahli mu ne ko laysa min ahlika noohin ci juróomi yonent yi gën ci yonent yi la bokk te ba mu ne ba ba doom ja bëggee lab ba ko ne bam ne sun borom kii sama dooma sama ñooñ la bokk mu ne ko bokku leen dara bokku ci sa ñooñ kon nag ak njuree li muy am am li muy neex neex sëriñ bi loola dafa mayiwu dara la fay maye dara mooy pas-pasu taalibe loolu nag moo ko may lim am la may Seex Ibra lam am def na ko muy joxe boppam joxe ñaqam joxe ba kanam joxe léppam ne ba sëriñ bi wool ko boppam ci lu dut muy tàggoo coobariwu ne ko sama borom gërëm na la gërëm naa la ñëwal soppi ab liggéey ne ko waxal li nga gën a bëgg ma defal la ko mu ne ko bàyyi naa nga tànnal ma mu ne ko dañ laa wax loolu walla yaa ko wax mu ne ko maa danga maa baaxee rek manoon laa wax loolu waaye kenn waxuma ko de Mbàkke mu ne kon nag baax na danaa la tànnal loo xam ne boo doon tànn doo ko mën a tànnal sa bopp kon nag yéen na ngeen sant te xam ci biir tànneef sëñ bi ngeen bokk nag loolu moom ku sëñ bi jur yaral ko boppam jëfandikoo ca moom lam jëfandikoo ba noppi ci moom nga xam ne seytaane du amati ci moom ak wet doo am ci moom wàll loolu kuy wax amatoo loo ci wax yàlla na yàlla tas ci barkeem te barkeem jaboot yi saxal nu ci ak taalibe bi nga xam ne du du du du alali baadoo la ak taalibe bi ci boppam du alali baadoo la jomb na baadoo la Sëriñ Tuubaa la ma kilifa gu mag a mag bu ko jegee jege ne ko li ma yoroon dama ko moomut dafa am njëg bu doon lu ma mooma kenn du leen ci jiitu ndax kenn gënuma leen a jege waaye day jaay rek mun ne ko ndax sañ naa koo xam mu ne ko waaw mu ne ko lu mu mu ne ko jaayit na saaba defoon mu jox ko boppam mu jox ko loola kon sëriñ bi lim yor moomu ko day jaay ku jënd rek am seen baay seen maam jënd na am na lim leen jëndal na ngeen ko téye te fàggu ko wormaal ko yor ko ba nga xam ne li jamono yàqu yàqu ak waa jamono du dugg seen liggéey boobu loolu nag ni koy defee mooy sëñ bi képp bañ ko booleeg dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mamor moom sëriñ Fallou yónnee na fi ab délégation moom itam mi ngi fi. kon balay sëriñ Abdul Ahad di ñaan ñu yëkkati jotaay bi dañuy bàyyi sëriñ Haaruna ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu jàng ay ayat quraaniya bu ko defee ñu yëkkatee ko jotaay bi comme niñ ko tàmbalee woon ci alquran mu jeexee ci alquran. bismillahi rahmaani rahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الأنفس ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم